espoir ñëwaat na yaakaar juddu na ci ndaw yi mag ñi kenn jooyatul liggéey kon jaarama FKR abal ma ma liggéey ñëw na amul intérêt yi amul caution garantie la laaj lii de ko am chance la waaw lii de xéewal la ndeysaan Assalamu alaikum wa fondation Karasul rasul salatu wa salam Assalamu alaikum jilut àdduna mangi santi de gram. machallah 18 000 personnes yi nga xamee ni teew ci nabi Andak lancement FKR abal Mamelike. Bindon des def du ci siège fondation Karasoul Ali alayhi salatu wassalam aux Almadies samedi 6 janvier 2024 dugg nañ ci bis bi dem nañ ci guddi bi ci rahim génn ci ci rabbil alamin ñu sant borom bi nga xamee ni moo ñu may teraanga àdduna ak alaaxira muy seydina muhammad alayhi wassalaam moo tax ñu jël bépp projet bu fondation Karasoul am dénk ko sunu yaakaar seydina muhammad alayhi wassalaam di ko ñaan mu bunge mu wéttali ñu mu oriente ñu vers la réussite totale ndax ñun de ay jaam yu tële leen mënuñu amuñu waale ki nu àndal mooy teraanga àdduna ak àllaaxira moo tax guddi bi ñu jagleel ko salaatu ale nabi ngir sunu yaakaar sunu sang àdduna ak àllaaxira tey ci projet yi def ci leeram def ci dooleem def ci ndimbalam moo tax maa ngi sant képp ku fi teew di sant bu baax représentant yi whatsapp yi nga xamee ni fondation Kër Rassoul moom la am ngir ànd ak ñun ci guddi salaatu ala nabi di masow bu baax yi nga xamee ni jotuñu agsi ci tant bi waale nan jàpp ni yiw buñ fi am incha allah rabbi sunu borom ñun ñëpp la koy boole ndax sunu borom yéene lay fay innama amal binniyaati maanaam l'intention vaut l'action kon ñu delluwaat ñun ñëpp ci baatu alhamdulillahi rabbil alamin sant bu baax seydina muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam ki nga xamee ni lu nu am mooma fu nu àgg mooma lu nu mën mooma kon fondation ko Rassoul ci sama kàddu ak ci kàddu bépp représentant ñi ngi sant bépp jullit di ñaan sunu boroom lépp lu ñu yéene yàlla na leeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam dugg ci yàlla na kàttanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci jërëjëf waa fondation Kër Rasoul alayhi salaatu wasalaam FKR abal ma ma liggéey yàlla na tas ci àdduna bi ci daraje rasulillahi alayhi salaatu wasalaam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salli